alhamdulillahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dhawi nawali alwali هذا وإني اليوم سوء توسلي له بأسماء سوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بنظمي هذا يا كريم وهب لمن والتوفيق بحق عثمان أخي النورين وبعلي والد الشبطين هب لي في الدنيا ما أخرايا النور والعلو والمزايا بحق طاعة وبالزبير وحق سعد النجني من ديري وأبي سعيد وابن عوف نجني من كل ما أخافه من فتني وبأبي عبيدة ما يفيد إلى جنابي واكف عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كسر علمي بحق عبد الله نجل الأمراء anik fi daban maa jajurru darara wa bimni mas'udin wa jaahibni salaam xinil balaa wa durra aynin wa kalaam yaa rabbana bi xurmatil abbaasi wa xamzatin anik fi kulla baasi bi xurmatil xasani wal xusayni judliya fi daarayni bin nuurayni بحرمة القاسم ثم الطاهر صف ظواهري يا مع ضمائري بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشر والتكريم بجاه فاطمة أفطم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي وبالرقية وزينب اكفني الطرد والحجاب كل الزمن وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنبني النقم بأوزن بن عامر وهرمي وحق مصروف تقبل كلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifatul xaam di taifatal muride cheikh mamadul muntaqa xafisahu allah waraaw yal na suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér di nuyu sëriñ seex mbàkke caam di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu sëriñ seex bu baax di ko ndokkeel di am mbégte mu mag ak sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seexuna Ahmadul Xadim bu ñu yàlla mayee ñu fekkewaat ko ci jàmm ak salaam eh, di leen bëggee bu baax itam di nuyu ki nga xam ne kilifa sëriñ Cheikh Mbacké Thiam la muy alaaji Madiagne Diagne di ki nga xam ne moo yar Cheikh Mbacké di ko nuyu di ko di ko tatagal ci bis bi moom itam di nuyu itam kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom la àndal sëñ Mouhamadul Mbacke moom sëriñ Mbacke Dabassar ak sëñ Mouhamadul Fadal Bousami ak ak sëriñ Salihu Mbène njabootuk sëriñ Salih Touré ñu leen nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen jaajëfal ñoom ak bokki taalibe yi yëpp eh, di leen xamal ne bis bii sëriñ Cheikh Mbacke woote it bis la boo xam ne kenn ku ci ne war nga kaa def muy sa yitte ndax sant day loo sant day loo xam ne sunu borom tabaraka wa moom moo ko soxla ceeb jaam muy sant waxtu woo sante nu dolli nu dolli la kon sant képp kuy sant war nga xam ne ndollent moo ci topp kon sëriñ Cheikh kenn amut payam ndax li tax mu woo ñëpp ne ñëw leen ñu sant le ma sunu borom kenn ku ci ne amel nga ko cant gu mag ndax sant sunu borom suñu borom wax na ne sax maanaam ñu ti néew ci jaam yi ñoo may sant kon ñi koy sant moom am nañu fàttaliku seen borom cant gi nag di ndigal loo xam ne lu mu am ci boromam la mu di ko woote waxtu ne te di ko def ci kilifteefu sëriñ bi itam ndax ku ne xam ne ne ab murit moom lépp lu muy jëf rek da koy teg ci ndigal muy woote bis bii di sant sunu borom tabaaraka wa taala bis bi it lamboo may yu baree bari yoo xam ne eh, sunu borom def na ko ci yu demee ne que maanaam boo santee dañ lay dañ lay dañ lay dolli kon nag sant mbir la moo xamante ni bii képp ku koy def war ngaa rafet njort bu baax a baax a baax ndax ku tedd ku Seexuna Amadul Xadim sunu sëriñ loolu la woote woon bis bu màgg bi nga xam ne mooy bis bu màggal Tuuba ndax mooy sant te ku ne xam na ne màggal gi bi ñu ko sëriñ bi bi sante ba boromam lenn rek la sëriñ Tuubaa ma sa wax ne nañ ma ci jàppale mooy sant yàlla beneen liggéey bu man daan daan a ko jël di ko liggéey waaye du wax ne nañ ma nañ ma ci nañ ma jàppale da daa santaane rek ne def leen ko muy jumaa ji nga xam ne mooy symbole de yoonu murit wax ji ndax ñoo jëf muy muy loo xam ne lu am lu am solo la lool euh, sëriñ Cheikh Mbacke it ñi nga xam ne ñooy eh, kilifaam yi di waa kër sëñ Maam Xaas Mbacke. sëriñ Cheikh moom it mu ngi leen di sant bu baax njabootu sëriñ xaas bi ñooñu sax ñoom ñoo waroon a jiitu ci lépp ndax ñooy borom bi ñoom kuy jàpp ñoom ngay jàpp dimbali muy njabootu maam xaas Mbàkke di leen nuyu bu baax di leen di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay sant nag bi ko sëriñ bi wootee dafa wax ne nañ ma ko ma ko defle ndax dafa xam pouvoir bi ci sant yàlla ndax waxtu woo sante rek ñu dolli la te jullit bépp bu ne li nga gën a soxla ci àdduna mooy dolli ak dolleeku dolleeku ci sa digg sa borom dollee ko sa digg ak sëriñ bi dollee ko ci ci àdduna ci li nga bëgg te waxtu woo sante rek da ko am kon nag bis bi loolu la la la làmboo sant sant suñu borom Cheikh nag di ko def ak mboolem ak bokki yëpp di ko defee ak mboolem jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp kenn ku ci ne nag Cheikh nag mi mu ni ko yàlla binde moom danaa ko wax fii daaw nee naa sëriñ Cheikh Mbacke moom dafa li ko yàlla binde mooy moom képp ku mu gis ku ne daf lay jàppe ne boppam noonu noonu noonu la ko saa borom binde maanaam nit ñi sax ñoo itti doomu aadama it moo ko gënal itti boppam loolu ko yàlla bi nit nag bu demee noonu da nga xam ne kii maanaam cërub suñ borom mi ngi ci moom kon nag daanaa wax ne maanaam suñ borom mi nga xam ne mooy buur itam mooy jël lépp loo xam ne lu ko neex la def ko fa ko soob bu ko defee fa ko soob dana ko def ci ko soob loolu mooy li nga xam ne mooy mooy cër bi nga xam ne Serigne Sam Mbacké Thiam loolu la yor te it loolu am na luñ ci seere ndax liñ ci seere mooy suñ digg ak Serigne Sidi Mokhtar am nañu bis boo xam ne fii maak moom ak sëñ Sidi Muxtaar rek fi benn barab am waxtaan yoo xamante ni bii Cheikh Mbacke seq na ko sëriñ bi ñun seere na loolu itam xamal nañ diggante sëñ Sidi Muxtaar bu baax a baax kon nag euh, bis bi ku ci teew war ngaa sant yàlla bu baax xam ne lépp taw féex la lépp itam ndigal la suñu borom tabaaraka taala dara dara loo xam ne da ciy gën nekk hasard wala nekku ci li ci ne lépp day yàlla kese kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant mboolem ñu fi teew ñëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw rek nga xamal ne bis bi moom euh, maanaam lu ci waaye def rek sa bopp nga ko defal ndax loo xam ne nii day day dem lu dem day day dellu am lu muy lu muy lu muy lugat lu muy indi kon nag euh, na xam ne bis bi mbirum suñu borom la moo xam ne lépp lépp taw tawféex la waaw ñu ngi leen di gën a dénkaat rek nu nu gën a nu gën a nu gën a nu gën a jaajuwaat jàppaat sëriñ bi sëriñ Touba radiyallahu anhu te tënkuwaat ci ay ndigalam bu baax a baax te xam ne lépp lu lu waaye di def maanaam ci digg bor diggam ak boromam na ko na ko na koy na koy rafetal bu baax te jaamu yàlla ni mu ni mu ni mu waree te ko ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di diglu njëriñ sëriñ Touba di ko di ko bàyyi ndax sëriñ bi ko daana ne man lu yàlla maanaam taxumaa xëy taxumaa gont kon nag ku yaakaar sëñ tubaa bay ma nga ma nga bàyyi xel loolu bu baax a baax ñu ngi sant bu baax nag di gërëm waaw ndax euh, li liñ denc lépp ci ci ci digg sëriñ Cheikh mënuñu ko wax waxee ci ci rajo ndax ndax yaatu na waaye nag li ci li ci xol yi yëpp mënut a génn ci ci làmmiñ kon daal ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne moom moo mën a maye te du jeexal kenn ku ne loo fi indi ci yitte rek yàlla ko sa borom saafara barke sëñ Tuubaa waaw lépp lu sa yitte yàlla ko suñu borom saafara yàlla nañ ko yàgg teewaat yu baree baree bare bare ànd ak tawfiq ak mucc. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi leen di siyaar di jiital ci siyaar bi sëriñ Fallou Mbakke ak sëñ Madiagne mi li ñaan ñu tasaaroon ñu ko ci mbooloo bépp di ñaan sunu borom tabaaraka wa sunu kàddu gi fekk leen ci jàmm di. joyal rek ay kàddu yoo xam ne mu ngi bawoo kër sëriñ Xaasim Mbàkke te sëriñ seexum sëriñ Xaasim Mbàkke mu sëriñ sëñ Xaasim du suñu kilifa ci ay kàddoom rek lañuy waxee mm, ma ñëw fii ànd feek sëriñ Muudu Mbàkke moom sëriñ seex mu sëriñ Xaasim ak sëriñ Modou Mbacke Abdou Khadir mu sëriñ Cheikh mu sëriñ Xaasim ak sëriñ Abdou Samad Mbacke mu sëriñ Cheikh mu sëriñ Xaasim ak sëriñ Abdou Lakaram Mbacke ñuy feddali ak euh, kóllëre rek ak cant ci sëriñ seex Thiam ndax bis bii ak ñëwam fii dafa am lu ko jiitu ci lu ñu xam loo xam ne am na ci loo xam ne fekke woon nañ ko ci digganteem ak sëriñ Seex Mbàkke mu sëriñ Xaasim ñu gis ne fonkon na ko lool ba daan ko booleek lenn ci ay njabootam sax euh, di leen yabal Cees googu mu nekk te bu bu leen fa masaan yabal tamit ci këram la leen yabal ñu nekk fa ay weer weer wala ñu nekk fa ay jamono yu yàgg ci ay jëflante ñuy jëflante kon loolu nekk na lu yàgg-yàgg diggante sëriñ ak taalibe la waaye diggante baay ak doom la waaye diggante xarit ak xarit la muy ak kóllëre te kóllëre googu sëriñ seex sàmm na ko bu baax a baax ndax suñ borom tabaaraka wa taala moo digle ñu sàmm kóllëre looloo tax nag moom mu sàmm kóllëre googu loolu nag ñun moom la ñu dabu si fii bis bii nag mu woote bis bu ama am solo la ndax sant yàlla dafa war ab jaam te suñ borom moo waxoon ali daawud ne nañuy nañ may sant ndax ñoom ñu ci néew ñoo may sant ali daawut te ko sant yàlla fàttaliku nga ko kon def nga ñaari liggéey suñu borom ndax suñu borom moo ne fadkuruni was waskuru lii wala takfuruni fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen bu ngeen noppee ngeen sant ma kuy sant suñu borom ku ne danga koy fàttali ku door koo sant kon jël la ñaar yépp ndax fàttewut suñu boroom moo tax mu mën koo sant te ci biir sant googu nag ci la ñuy gisee ne ba mu ko tàmbalee ba léegi mi ngi yokk kon jàpp nañ ne ni Sëriñ Tuubaa daan def nga xam ne bu ne axis nii axis nii day mujj ne aqasaniyal xannaanu min kay di man xalaa mooy buy ñaan ba ci yàgg mu wane ne lañ ko ñaanoon defal na defal na ko mooy sant gi ni ni ni ko suñ borom digale woon mu dik ko def daa mujj mu dem ci la in sakartum la azidannakum mu dem ci ku ma sant ma dolli la kon ginnaaw mi ngi koy dolli kon jàpp nañ ne sant gi suñ borom na ko lu am solo la loo xam ne nii waxtu wu jot ab julli da ko war a def ndax ku yàlla defal loo xam ne nii say waajur mënuñu ko lu la waay mën a yéene mënu laa defal la yàlla defal ndax ay bët rek bu loo ko yàlla defalee nga di ci xool di mën a faj say soxla amoo lenn loo ko mën a fayee yeneen cër yi naka noonu amul benn cër boo xam ne doomu aadama mën na ko defal boppam te bëgg ko yàlla defal du ko ci fay dara te Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ci tasawuru sixaar daan ne suñu borom li mu jëfal mbindeef yi ak jëf gi mu jëf mbindeef yi da koo soob rek waaye amul lenn lu ko ci war kon sant suñu borom moom bis bu set la war ci loolu la nekk nag waaye mu ne naa ko tànnal bis bokk kook mbindeef yi kon loolu day lu ama am solo liñ ci dabu di nga ngërëmul suñu borom yàlla nañ ko ci am fiñ ko jaare it ci barab bu ñu war a jaarale ak cant la ndax kuy sant yàlla ci sa danga koy sant ci sa làmmiñ waaye nag des na koy sant ci ci say cër na nga koy sant ci say cër moom mooy cër yim la sàkkal nga di ko ci jaamu ngir sante ko ko bokk na ci ngay jàng alquranul karim gii di ko ci fàttaliku ak di ko ci ñaan di ko ci sant waaye ngay jàng tagg yi ko suñ Sëriñ Tuubaa tagg te di ko ci sant ak di julli ci ka nga xam ne moom la gën a fonk ci mbindeef yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci sant yàlla rawatina nag bernde yi ndax bernde moom mooy nga lebal yàlla te suñu borom tabaaraka wa taala mi ngi wax ne lebal leen ma ak njekk ziar ngi ziare mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp. di jiital kilifa yi teew yëpp. di jiital ci nuyoo bu ak ziare bi suñu kilifa yu tedd yu mag yi toog ci jotaay bi. fekk leen ci dëkk bu fekk leen ci dëkk bu tedd bi. mu ñëw fekk si leen ci dëkk bu tedd bi. dëkku Serigne Touba. di dëkk di dëkkub Serigne Touba. nee na mu ngi jël nuyoo bi nga xamante ne moom la ñuy nuyoo waa dëkk bi yëpp. muy koy jaarale ci suñu xalifa général sëñ mu Mountakha Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko. di ko teg ci loxo suñu kilifa yu tedd yu mag yi yëpp. nee na ñu ngi nuyu suñu waajur suñu baay baay Madiagne Niang. di ko ñaanal itam bu baax. suñu borom gën ko fee yàggal te wéral ko. ak mboolem njaboot gi yëpp. mu di nuyu itam sëriñ suñu bàyyi sëriñ Cheikh Thiam. moom mi nga xamante ni. Eh, cant gi moo koy woote. gi moo koy woote. ngir di ci sant suñu borom. ci xéewal yi mu ko defal. kon loolu itam ñu ngi ko ciy sant bu baax. te ñu ko ciy boole mu ciy boole ñun ñëpp. man euh, moom mel na ni ñu ngi ànd ak sëñ Ahmadou Dame Touré. sëriñ ak sëriñ Xaadim Touré. sëriñ Mamour Touré. ak sëriñ Mamour ture ak sëriñ alxaaji Touré. teg ci suñu jëwriñ maam Cheikh Jaxate ak mboolem xasida mi nga xamante ne ñu ngi ànd ak Serigne Khadim Touré di waa këram fekk fi tamit koo xam la mën naa bokkaat fekk fi tam jëmm joo xamante ni dañoo laxasoo lool muy Seydina Alioune muy Seydina Alioune Thiam mu karamu ndax mën nañ fee nekkal ndax moom fépp fu mu nekk mën nañ leen faa nekkal te mate ko sëkk ma des na la faa teewal itam ndax ca daara ja la nekkoon ànd koog ñi mu ko àndal ba tey jii ba tey jii at yëpp bu yëpp bu yàlla defee ñu teew ci barab bi seen kàddu duñ ko jugal ndax moom su waxee rek waxaale na leen ñoom ñépp téere téere yi nga jàng daara ji. ndax téere yi nga xamante ne jàng nañ ko ci daara ji. soo soo waxee rek. soo waxee rek. daara ja wax na. daara ja wax moo tax ñu seen kàddu. dañ koy dugal ci biir kàddu. dañ koy dugal ci kàddu Seydina Alioune mu karamu. saa bu ñu ñëwee rek. saa bu ñu ñëwee rek. noonu lañ koy doxalee. noonu lañ koy doxalee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di sant Serigne Fallou Mbacké mi. di kilifa jotaay bi nga xam ne saa bu nu ñëwee fii fi la nu koy fekk bu nuy dem fi koy bàyyi di ci tag sëñ Fallou Bousso mii nga xam ne dëkkaale la te yonant bi bala ngay dëkk na nga wut dëkkaale muy dëkkaale ju matale ci rafetal ak kóllëre ak di dimbalee ngir yàlla di ci tag sëriñ bi nga xam ne sëñ Mbàkke Daba defe naa mooy kilifaam waaw sëñ Mbacke Dabassar ku ne dégg na ko. sëñ Modou Mbacke Dabassar ah, sëñ Modou Mbacke doomi sëñ Mbacke Dabassar waa Kasa kon sëñ bi noo ngi lay siyaara di la jox sa wàccuwaay di ci teg sëriñ yi nga xam ne ñooy waa kër sëñ Xaas Mbacke di ay sëtam te man sëñ Xaas Mbacke moo ma yar def na ci man loo xam ne lii du dañ mukk ndax ñaanal na ma te lu ma ñaanal nangu na te sëñ Xaas Mbàkke li nekk ci moom Sëriñ Tuubaa ko ci def moo ko duy ba mu fees dell mu belende ko ku dem fi moom aajo boo fa yóbbu muy saayir muy baati mu faj ko boo jëmee ci moom ñu yóbbante la nga fàtte ko ba doy mu fàttali la ko léegi teg waa kër sëñ Saaliwu Ture mii te sëñ Saal Mbenn mii Euh, géete leen yàlla seere na ne bi di lim ba tudd sëñ Saal Touré sama rangoñu dafa génn ndax dafa toll ci man noonu booy wax ba tudd ko fokk ma jooy duma ko sare du ma ko mën a téye ndax nu ma nu ma toll ci nu mu toll ci man ak li ma xam ci moom ak sëñ ma sàmm Mbàkke booy wax ba tudd ko ma jooy ak sëñ ma jàng yi ñett ñi booy wax ba tudd leen fokk ma jooy di leen seedeel ni seex mii cant gii sant ak gi ma koy sant mi ngi mel ni ñaar ak juróom-ñaar fukk ndax borom Tuubaa boo nee diw diw baax na mu ne ndax bokk yaa ko wax boo nee diw mën naa jàng mu ndax ña mën a jàng ko wax te seex maa ko yar yàlla boole nu nu déggoo te borom Tuubaa dafa wax ni ak bokk baax na lool waaye li muy baax baax déggoo ko gën te nee li tax a déggoo yetti der rekk la ba ca jëkk moo nu fi dajale tey mooy bésu sëñ Cheikh bii am na ñu jóge Tamba am jóge Kuppantu am ñu jóge ngin ngineew ñii jóge Ndakaaru ñii jóge Kees fu ne waay jóge fa ak waa Touba bésu sëñ bi rek a tax nit kenn du ko xeebal bésam mooy dox leente aajo ya mooy deel gu njëkk ga yow mi def nga ci loo xam ne rëy na fi seex lool yëg naa ko xam naa ko uh-huh. te jëf lu mu rëy rëy ki ko jëfal bu ko xamee rek sa xol day sedd uh-huh. ba ca topp uh-huh. mooy waxtaane bokk ga moo ñi doon lim ñi fi teew diw teew na fi diw teew na fi diw teew na fi nga xam ñi fi teew xam li ngeen bokk mooy diisoo waaw ba ko ñetteel mooy ku tane sa moroom nga dimbali ko ndax nit bu nekkee ci aajo nekk ca lu mat at mbaa weer mënu dara mu ñëw nga defal ko ko ci lu matul ñaari minute mm-hmm. mu di la sant nga ni ko ah, noo ko bokk mm-hmm. du la jéppi du la yab mm-hmm. ñetti deel yooyu mooy dundal bokk mooy dundal kóllëre mooy dundal lislaam waaw dimbali nit koo tane ba noppi gën koo woyof loolu la nit di sotee la nit di gëne nit nit borom Tuubaa dani nit mën naa ëpple ay bokkam waaye du leen mën a ëpp nee na nit mën naa gën ay bokkam waaye du leen mën a génn kon nag mbokk bokk alal bokk diisoo bokk pexe topp nag ndigali sunu borom yi moom la sëñ bi digle léegi li yàlla digle moom la borom Tuubaa digle li mu tere moom la tere jox yàlla boppam ba yàlla jox ko bindeef yépp boo demee ca biroom ndar dala ni yéen ñiy xalaata xent yoonu bamba ma dolli leen ca mbër ma dem naag yan ba dal ngeenu sas wu rëy wu ngeen dul jeexal su ngeen ci doon dëkk du ngeen ko xaajal ndax li mu def ci ay bayit xameesul la dem la dem kemam xaaj ba rekk feeñul wax na ni def na ci bayit lu ëppwul sànn ci géej gi ngir giseef ko daganul yàllaa ko tegtal yoon wa jëm ci ahmadu ahmadu mu ngi fab ko delloo sama du buur yàlla fab ko jàllaleel ko boppam ci ay màkkaanam foofa yàlla moo xam borom Tuubaa yàlla rekk a ko xam donc ko xam dëgg la biraa suman biraa sani biraa yu baat san mu taq man baari saman hmm. la Bamba wax kon képp kuy daanante teggi ko ndax bokkul ci ñi manante moo man ci géej gi mooy ki man ci jéeri ji xamee sulum kamam du kus di wàllu ji laajal faraas ma roogu woon ba jekk te naanu xool leen ko dangeen koy ñàkk dellu ko laaj ña doon signal borom ndar yàlla du buur ngir bëgg a mucc lu ko jar ña nga taxaw ñuy woote gaañay tampe ba tas ki man ci góor ñi moom du tampe bésub keroog bu lu woon ki man ci góor ñi tàmpaya daj bàmba di bàyyi góor ñi bésub keroog ku tàmpi am nga suukar ak lëf ci xaalis daal di daw dellu sa kër sa diine des fa àndandoog sa ngor ga nga naa siñe si fii du teema dellu kër ga lekk ba suur ndawal gu jomb ci gor daal di bagaasu boole kook sa suukar te naa sëriñ bu mag bi yaanu jaaxal defal ndimmal siñeel nu dembul gàntal loolaay xalaati gaa ñëwoon biroom ndar ku nekk naa nan suñu dellu suñu kër fekk na rang ba bamba mooy fukkeel ba waaye mu daal di def lu tax ñu daal di leen ba daa lu ñëw ni maa ci sat laaj leen ma man maa waral ngeen di gis ngeen ma ñii ñëpp nañu leen bàyyi maa di seenu jot maay koog du daw te dara dara du ko jot ñu maasa jóg taxaw tubaab ba naa ko kon wax nu lax salaaj bi yaa ko sàkku ñu daal di tas géew ba bàyyi gaaña ne bamba noppi ngaa gis sa gaaña seex bamba naa leen fu ngeen fi xam te yàlla nekku fa na ngeen ma yóbba ca foofa ba ma fa kii rek a doy nit ñi te doy boroomam ku xam jëfam doo mën a xam moroomam. jërëjëf foofu laa yem nag. boo <laughs> jàll jàll jërëjëf jërëjëf boo gisee ma ne sant dama koy sant. Uh-huh. mbooloo mi mu muy indil fii. Uh-huh. sa lu ñu wut ci yàlla mu yomb. alhamdulilah alhamdulilah. te at mu ne andi ko te mu ñëw ëpp doole. morom ja sëñ Saliou mii nag. Hmm. borom baati ni moom xam nañu. Hmm. fi mu toll ci yàlla ak cër bi moom. Hmm. ca néegam. la tëye ci sa mbagg mii. bës ko ba mu dër. mu ni ma def naa la ambassade ci sa bopp. foo nekk lu mat a def def lu mat a dindi dindil ma am ci ndigal mhm. loolu njabootam ñëpp xam nañu loolu sama digg moom mhm. des na de mhm. nuy tam ba mu tëdd guddi géwént ci yàlla te ñoom seen géwén eh, eh, eh, am indi la waaw mu yeewu ni mag ñi ci jàkka ji képp ku ko man demal ba kër alaaji Madiagne nga dugg fa ñaanta sa soxla yàlla xamal na ma ko sa tànk dugg say dara ja di yëkkati ko ba àjjana ma am ñaari fan mënumaa génn sama nekk nit ñi ñëw nit ñi di ñëw ba fekk ma fa wax ma ko may leen moo ko wax ñu ne ma moo ko wax mhm. may leen alhamdulilahi la si saddaxanaa mhm. la xeetu Moustapha di tabbee àjjana mhm. ku xës ba tabbi ka fi jannaati doo génn doo seetaani doo ñeetaane doo wopp doo ñàkkati doo to faatu palgatu fa likooti ñoo ko yaatu awaluha samaatuha daarul jalaal xusóoruha sanu min kulli jamaal dëgg la daarul jalaali moo di kër gu magga moo gën a taaru gépp kër ni màkka njëndeem yi ak taaxam yi ak meloom ba mënee su ko misaal xajul te woy wa dëgg la wurusu jawxar la ñu dam yaa soof ya loolu loo war marjaan mooy kenoom ya moo gën a leer armool bu yor ab seetu ñu bala fan ca yàq xaalis ak yàqootu da ngay sag yuq ngir leeraay ba aras di jaay tiim la yaag yonan ya gaa yi arat ak sidratoo kursi yu mhm. ñooy defi sandarma fa kër wàllu yu addu xuloo xaa bi salaamin saalika yawmul xuloo di mooy nuyof naalika kutiba laa ilaha illa allaahu muhammadun ardo illahu bi kulli baabin maamina la baabi foofu laa ci yem na <laughs> dégg nga moom dañoo bëggoon nga faral sax waaye xam naa ne <laughs> jot nga ko maye waaw kilifa yee fi ah, waaw waaw dañu ma ko waaye foofu doy naa sant nañ sant mooy sant seex laa leen di béral dëgg la dëgg la boo nee diw baax na Serigne Touba ni ndax bokk yaa ko wax. dëgg la maa ko yar. la. nu nekk ma mat juróom fukki at ak lu topp. jërëjëf ñang noo werante. jërëjëf ñang jërëjëf lu ne séq nanu ko. baax na ko nag ci wàllu wu mën a jaxase ay nit. Mm-hmm. te yàlla danoo boole rek. mosunoo werante ci dara. jërëjëf te jomb na maa fen. jërëjëf ñang loolu xam la ndax lii tax a fen. Mm-hmm. ragal ak yaakaar. Mm-hmm. te tax ragaluma ko. yaakaar naa koy ragaluma ko. waaw ndax jikkoom. laa koy sante dëgg la bu ko neexan fooy bu dem ak boppam dara dara laa ko dul mënal waaye mboolem yu yëf yi rëy rëy ak nu mu toll toll bu dikkee day boole lépp jox ma dëgg la jërëjëf ñaan bésu sëriñ Tuubaa bi bu dikkee mhm. bu màggal gi tara mun ma yekk yu pare na ba lim naa ci fukki yegg ak juróom-ñaar mu di ma ko jox. waaw ba samay doom ñu ngi koy jënd man ko. di ma ko defal. waaw du dëgg jërëjëf jërëjëf loolu dafa mat a seede. dëgg la daaba yi ñuy war. jox na ma ci ñaari oto bu mujj bi 4 x bu weex tàll la. dëgg jëf bu baax deesu ko nëbb. sëñ Abdoulaye wax na ko. dañu koy feeñal ku ko dégg ni yàlla na ko gën a man bam la koy jox man mii la woo. waaw ak waaw yaa ak. a sama borom damaa xamal oto bi day duma ko fanaanee ko jox sama la de te guddi googa mu nag guddi googa day guddi laylatul xadar nga xam ni gannaaw guddi gàmmu moo ëpp doole ci guddi nekk ci àddina guddi àjjuma ñëw topp ca ñetteel leen nee durus la daa fanaane gaayay sikkar gannaaw guddi gàmmu ba ah, gannaaw guddi gàmmu ba jant fenk dégg nga guddi googu loo ci yàlla day yomb genn guddi la guy wàcc juróom-ñett fukki at ak ñett mhm. ci genn guddi ah xam nga ne am na doole guddi googu ci la ma ko jox fekk ilimaan ne ma majaañ ma ne ko mbàkke mu ne ma tey dama bëgg nga ñëw waxtaane guddi gi hmm. ndax li ngay wax ñëpp mën nañ koo jariñoo hmm. te bu ñu waxee arab yi dañu koy firi door koo jariñoo seex ni ma balaa dem jàkka ja naa dama koo soxla ma defee neneen la may wax mu ñëw ni ma damaa indi woon tey oto bi ngir jox la ko addiya loolu lu rëy addiyatullaahi wa doodi sama di af xataatina muhammad addiya àjjana lañ koy denc mhm. te borom a koy te àjjana borom rek conteneur la borom a koy ubbi te àjjana ku dugg doo génn <laughs>